son septième combat de la soirée septième combat de la soirée Akon moo jàkkaarloo ñun Zebi moo ñu wan ginnaaw noonu Akon face à Zebi boo mooy septième combat de la soirée comme ni ma leen ko waxee tey la tey la mardi waaw Akon Akon Akon moo jàkkaarloo ñun Zebi moo ñu wan ginnaaw Akon waaw waaw waaw waaw ndeysaan ndeysaan Akon ci laa la Akon ci laa

moo daan Zeybi moo daan ay kool Zeybi daan ay kool jël bu rëy jël bu leer jël bu amul daan na ko waaw Zeybi bi Zeybi bëri na bëri bi daan na jël bu rëy ndeysaan le poulain de Sera le poulain de le poulain amul benn werante boobu moo nekkoon septième combat de la soirée septième victoire de la soirée mi ngi noonu Zébi Thiaroye Géej bëri na bëri bi daan na Akon jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante comme ni ma leen ko waxee tey la mardi 15 août 2023 Ndiogay l'arène nationale le promoteur Pape Thialis Faye à la tête de la structure à la tête de la structure l'autoproduction organisée Zébi daan na Akon septième combat de la soirée septième combat de la soirée moo jàkkaarloo noonu Akon face à Zebi boo mooy septième combat de la ni ma leen ko waxee tey la tey la mardi waaw Akon Akon Akon moo jàkkaarloo ñun Zebi moo ñu wan ginnaaw Akon waaw waaw waaw ndeysaan ndeysaan

Zeybi moo daan ay kool Zeybi daan na bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante Zeybi daan na ko waaw Zeybi bi Zeybi bëri na bëri bi daan na jël bu rëy ndeysaan le poulain de Zera le poulain de le poulain Ran Diop le poulain de Talla Issa Pouye Zeybi bëri na bëri bi daan na bu rëy jël bu leer benn werante